am internet Dakar live et Feeling Dakar ñu ngi leen jaar di am mbégte saa su nekk waaye tamit di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm ci réew mi di leen wax leen ni baal leen ñu àq ñu fekkee ay nga xam ne moo nekk tabaski bi yàlla def jàmm ci réew nekk li ngay ut borom may la ko tey nag dañoo doxantu ñëw fi nga xam ne moo nekk Diourbel seet ci benn ndaanaan koo xam ne dootuñ ko waxati mooy kan ci réew nekk Pape Sidi Fall l'homme de 2S a invité tey waxtaan ak moom nan lay dundee julli bi dama koy bàyyi rek mu nuyoog internet yi nga xam ne ñooy bàyyi xel Dakar live TV ak Feeling Dakar Pape waaw euh, maa ngi lay siyaar bu baax a baax Pape euh, Ndene maa ngi tuub bu wër ci mboole mi ñuy seetaan ci internet bi mhm. euh, di leen wax baal leen maax ah, baalaan yàlla yàlla boole baal sànq da nga wax léegi lu garaaw mhm. mooy Feeling Dakar sama xarit moo ko xam nga ko. Bamba suñu grand frère la. ah ñu bokk ndey bokk benn baay loolu tax ñu. Mhm. eh si m'entend je lui fais un gros big up. ouais grand Bamba ah il fait partie de ces gens qui m'ont formé à la radio Dunia à chaque fois que j'entends les mbalaxmaan di xuloo ba dugal ci Feeling Dakar dama naan yes <laughs> je suis très fier de lui macha allah et on est très content de de votre déplacement ñëw ba sama gàlle fii ci Njaareem c'est vrai que c'est la première fois que je reçois une équipe de télévision mhm. et ça fait plaisir xam naa ne mooy nekk last parce que sama yaay moom mooy coow coow yu mhm. avertir ñeneen ñi quoi pour bu ñëw quoi pour bu bu leen rek ñu naan woote ñu ngi ñëw. <laughs> Euh, macha allah léegi dama lay bàyyi rek nga nga ziar comme que yow moom aussi nekk nga ko xam ne dañ lay bàyyi xel bu baax a baax. jërëjëf rawatina comme li benn occasion la boo xam ne duñ ko am lu bëri. oui day baax quoi. waa léegi man maa bëggoon wax leen baal leen ma ax baal leen ma parce que dama leen a lakkar baal leen ma parce que damay xëy di def ay bêtises à longueur de journée et que les gens me supportent hmm. leen ma parce que lakkale naa très sincèrement et puis euh, bëri naa fi ay doomu bàjjan maa dàq tooñ Sénégal. Uh-huh. et tout le monde me le dit. Uh-huh. Pape Sidi yow da tooñ rek. et ñu ñi may tooñ aussi bu ma leen di tooñ dañ koy jël avec beaucoup de philosophie beaucoup de recul xam ne affaire euh, mbaax gu ëpp la wala xëy na tooñante bu bu dul am dépassement lay doon. Uh-huh. ci kaf ak ree ak teggin rek la ñuy teg tooñante yi maa ngi leen di baal wax li tax may insister ci baal leen ma ax bi parce que du baal leen ma axu ne da nga koy yónnee pour te débarrasser de tes de ton ma wax mooy baal leen ma bu sincère bu ngeen ma baalee ba noppi ngeen ñëw baaluma parce que yéen tam tooñ ngeen may tooñ. yaa parce que man maa ëpp doomu bàjjan Sénégal. waaw yow moom man dañ may collage. sa collage tabaski bi ba oh, Thomas commencé na collage ma tey ah. tey tey sama sama caay ju baax ji. Ah, ma lal sa sa bu baax. daamino ko daamino bu toj. Mhm. ma sol samay bagage booy ñëw di ma collage xam nga yooyu aussi c'est pas bien. mais ce qui veut dire que y a une y a sorte de symbiose entre les jeunes sénégalais et ça ça fait plaisir. Mhm. de voir que les gens sont vraiment cool quoi nit ñi nekkuñ di ils sont pas en de se créer des maa ngi leen di baalu ak sincèrement di leen baal ndax noonu la c'est le rendez-vous du donner du recevoir tey nag bésu tabaski la tabaski nag ñun nag dañ ci am aada juñ ci laxas joo xam ne mooy dem ci njaboot gi gisanteeg xarit uh-huh. gis ñi nga gëjoon a gis fóon leen siyaar leen baalanteek ñoom àq uh-huh. amut fenn ci àdduna fooy dem fuñ naan baal ma àq uh-huh. ak li mu firi ci wolof yi donc c'est très important fête bii ñu koy féete ci wolof maam Ibrahima moom la yàlla doon ne ko kaay nga rey sa doom ndax jaamoo ko yàlla mu def loola dem ba koy def ñu remplacer ko xar yonent bi dikk daal ne ko damaa bëggoon loola maam Ibrahima defoon mm-hmm. man ma xam naka laay amee yool boobu yàlla ne ko yow muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yow ak sa xeet mm-hmm. waxtu gi bu yo yeg jege seet bu yeg seetee mm-hmm. ngeen def la maam Ibrahima defoon maanaam xar rendi julli ñaari rakk ñëw jël seenum xar rendi jël res wa tàngal ba mu baax ngeen ndogoo ko <laughs> dinaa leen fay yoolu ku rey doomam ci l'islam donc cette journée est très très spéciale donc ci Sénégal nag ñun ñu am façon ngin wu ñu koy dundee dugg ci kër yi ñaan ndéwénal baal maax yi ñun ci région yi moom très sincèrement dafa am benn façon yi tabaski boo xam ne feneen foo tabaski fu dul ci région yi da nga naan noomeen nag wax dëgg yàlla tabaski wu ma parce que fii moom amul xaaj ak seen ndax suukaru kër gi mooy baraadal ñële seen xorom moom mooy safal suñu ciin waa kër la seen morso tayukaay moom la ñu suusalee cere ji mbaa ceeb bi donc ce qui veut dire que fii on vit une vie très très sympa amul euh, euh, xaar ma yàlla do waaye léeg-léeg nit dina amal àq doomu aadama te du ko yëg te àq dafa fort donc bu ñu yegg seet ñu baalonte àq je profite de l'occasion pour dire à tous les internautes et à tous les sénégalais maa ngi leen di baal ak te di leen baalu ak bu wér di leen déwénatil di leen jox dig daje très prochainement avec yeneen activité yàlla na coronavirus bi ñu dégg mu ne day indi ay troisième tànk xaw ma troisième wàll yàlla na ko yellu bule billaay nga xam ne yàlla la ëpp doon dikk nga un vague faale wuñu nga dikk deux vagues faale léegi nag da ngaa bëgg a def sa bopp place BCEAO di indi ay vague di dem di ñëw coronavirus. ah ah ah ah. Fatou Fatou la mais mais mais nga dund tabaski bi sa kër nii en famille nan na la def tamit Pape Sidi parce que comme yaa ngi koy wax léegi nekk en famille dund ko dafa neex rawatina ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci yenn régions yi. Hmm. Euh, sa tabaski bu jotee dañuy def tout ñu dem suñu famille euh, dundu ko nan nga ko dundee tabaski bi. tabaski c'est c'est une fête assez spéciale hmm. dañuy dañuy lekk yàpp déjà loolu moo si gën a neex. Hmm. dañuy lekk soos mhm. dañuy lekk yàpp de bu njëkkoon amun woon yàpp yu bari dañ doon lekk macaroni parce que benn kër gi mhm. day am ay quarante personnes wala trente personnes benn xar mhm. bu soixante dix mille la yi di daaneel te xar mi du mën a suur ñëpp donc dañuy lakk lu mu yem rek faar yi la ñuy lakk laal calgeen bi tuuti des macaroni non non loolu moom mooy li ñu doon lakk. Mm. léegi bu ñu demee ba soos bi jot nag foofu dañ ciy def pompiteer bu bëri ak macaroni ju bëri ngir mu mën a daj ñëpp. ku nekk loo ci am rek. Mm-hmm. nga muurloo sol yére yu ees foo ñi nga namoon balanteek ñoom àq. waaw bu bii bu guddee sa biir néew yi nga fër. Mm. <laughs> mais ben maintenant yàlla mu ñu dimbali. ak tuut ñu ngi am. ñu ngi am ak as léegi dañu ñëw suñu famille sama petit frère am na soxna sama yaay dafay tabaski moom xaram lay daanu man sama soxna ak man suñu xar day daanu donc benn kër bu am ay cinq six personnes mm, sant yàlla trois xar sant yàlla la en fait mm. du suñu njàmbaar xëy na ndimbalu yàlla moo jaare ci ngelaw li ëfaale ñu xëy na li mu denc ci ay magasin sax xaajo ñëw jot xaaj bi mais ça fait très très très plaisir de venir en famille de voir les amis la famille mm-hmm. de voir les amis d'enfance d'aller vers kër tante diw parce que da nga war a nuyu ji diw mais nag wax dëgg yàlla bu ma ñëwee njaareem damay sonn parce que suñu waa kër mën lañ def chauffeur taxi pape demal jëndi mburu mi pape demal jëndi huile d'olive ah, démb huile d'olive doon booy dikk indaaleel pommitère pommitère bi dafa dafa manqué euh, pape yaay dawal yóbbu tante sàngam mm-hmm. yóbbu tonton sàngam mm-hmm. fàllare uju indi jaay uju peccor go bàjjanay maam bi yaa koy mm-hmm. yóbbu macha allah copain yi il faut nga taal oto bi dem jëli leen parce que ay copain defe naa la am aussi yaa ngi koy wax léegi lu am solo mooy que ne àdduna boo fi nga jël ngay yàkkamti quoi sa jotee rek di nga si jot. Euh, autant métti woon na. dëgg la Pape si di ñafeel boppam parce que li nga am da ko ñafe yaa ko ñafe sa bopp ñun xam nañ ko fekkee nañ ko gis nañ ko quoi. jërëjëf te nekkul ne wax pour wax nii. Mhm. da nga ko ñafe ba toll fi nga toll. Euh, tey jii nga dem ba mënal sa bopp mais tamit am ñooy dimbale sa ginnaaw boo toogee di xal xool loolu noonu juru tabaski nan la la mbir mi di def. tey jii sa waajur bu góor fekkewul loolu nan nga koy dundee. waaw euh, da ngay da ngay da ngay xam ne yàlla rek mooy Karim yàlla rek moo man te lu waay xaar rek euh, il faut être patient pour voir le bout du tunnel. Uh-huh. xam naka lan laa koy faram fàccee ci wolof ba mu gën a leer loo muñ mu jeex. loo xaarul fa fekk loo du la fa fekk uh-huh. euh, dëgg la. dañ doon toog ba su tabaski ba ci guddi gi wala ba ci lendemain tabaski bi sama benn nijaay door a yónnee fukki ju nekk ñaar wala des fois sax fanweeri ñeen euh, quarante cinq bi ñu dem xar bu yamamaay boo xam ne danga koy xool mu dee xoolul ko mu dund mm-hmm. ci kër goo xam ne daanaka daan am ñaar fukki doomu aadama ak benn waaye léegi bu tabaski jotee danaa jënd xëy na xëy na ci ay xar yu xaw a takku mm-hmm. jàppale sama tante diw jàppale diw jàppale diw jàppale diw installé nekk ci installation kër gu ees fii lii nga fi def fee lii nga fay def nangam mhm. nangam di jàppale ay doomu aadama moom man war naa koo mën a nangoo def ndax dan maa jàppale mhm. bu fekkee fàtte fi nga xam nga fi nga jógee euh, boo gisee ku fa toll da ngay xam li muy dund te joxe metti na waaye laaj moo ko gën a métti des fois gor dina góor ci dara bëgg wax mais du mun a wax wala gorom am ngorom moo ko dut may moo tax bu la yàlla dimbalee rek del bett nit ñi di leen nuyu nuyu murit mm-hmm. del gànnoo yokk aslëf mm-hmm. nga boxal leen dara rek loo xam ne yow ma samba yëgut ma dem ba yëgut fa mu leen di yegg ak na mu leen di def du yàq ñoom rek waaye yàlla di ciy dugal loxoom parce que li nga joxe loxo ndeyjoor bi nga joxe loxo càmmoñ bi sax yëgul mm-hmm. waaw yooyu moom yàlla mu ñu ciy dimbali ci ñu ngi ciy waslu ax mais di Euh, le culte du travail ne doit pas être euh, perdu gis nga bu fekkee da nga seetlu àdduna li ko li ko li ko li ko li ko li ko wërmbal kàpp mm-hmm. da ngay seetlu ne dafa am koo xam ne dafa doon jaay picc mm-hmm. ba am am koo xam ne dafa doon jaay dafa doon nekk euh, chauffeur taxi wala mu nekk chauffeuru wala mu nekk coxeur ba nekk njaga njaay ba kii tudd Diallo Picc Babacar Ngom Sédima il a un parcours remarquable ainsi de suite ainsi de suite donc je me dis que il faut nga am benn affaire boo gëm ba pare bañ a victimiser wu mm-hmm. gëm ko rek gëm rek bu fekkee nanga nga bëgg defar film t'as juste besoin d'un truc qui filme mm-hmm. Si tu veux faire un film, ouais. tu besoin d'un truc qui filme. Mhm. Non, j'ai pas de matos, j'ai pas d'aide, personne ne m'aide. Ça, c'est un truc de victime. booy victimiser wu lu yàgg yàlla danaan ah. kii dafa soof. kii li ma ko may yëpp maa ko may wérgu yaram may ko xel may ko kattan. Mhm. pour mu jéem a xool naka la ciy génne moom mu nekk fii di jàmbat rek. Mhm. comme day jàmbat problème xaaral ma dollil ko problème. donc je me dis que on se plaint pas on va faire ce qu'on appelle essayer de. se démerder avec les moyens de bord. Mhm. mais petit à petit. Dieu sait que dina gën a baax dina gën a saawan dina gën a baawan macha allah yaa ngi koy wax léegi nuyu murit parce que yow tamit nuyu nañ la nuyu murit ci tabaski bi xam naa ne bett na la gis nañ tamit di ca taal def na si tamit wax ju am solo mhm. euh, nan la la def la fekk ngaa ko wool rek na la sa waaye kaay jël sa xar waaw ngaa ko woo ma benn booy moom moo ne ma ano ah ngaa ko dañu daje concert u tayik bi mhm. mu ne ma ma wax ko moom rek ja moom rek man du ma sam morom de nga naan ma naa la jox mu ne ma non man maa la bëgg a jëndal xaaru tabaski ma ne ko booy booy bu def loolu de mu ne ma a biñ may woo waa bu fekk na man maa ngi njaarim mais dama ne booy bi fotol ma xar mi nga yónnee ma ko comme ça ma xàmmee ko mm-hmm. mu fotol ma xar bi ma yónnee ko après mu ne ma. xar bii la la ngaa ko blend may ma posté ko daal ne ngaa ko may ma xar mu rafet mhm. allah. lu tax sa copain nee na mbalax maa ni ko may xara aba aba <laughs> ñu bàyyi sàcc de <laughs> waa yi aba bàyyi leen <laughs> gis naa démb yaa koy ruube ay gaañ la yooyu euh, xam nga. coowal milliardaire coowal milliardaire. lu si ab borom cent wut. waaw ñun cent franc deer yi xaar. ñun cent franc déeri dañuy dañuy rek macha allah dañuy mbalagante rek jàpp suñu jàmm macha allah voilà donc du coup mooy loolu am na solo trop am na solo li def noonu sama yaay di daa sañ sa ñëw pour génn si kay day mooy maire bi ah yaay da sañ sa pour génn si télé <laughs> wane leen ma kii mooy yaay Pape amaa <laughs> euh, amaana musul génn maire baa ngi nii eh, maire bi na télé yaay génnoon na télé benn jour ay waay yaay sañ sa nga ndeysaan sañ sa ah? rafet na kontaan naa ci yéen trop. sama taw bi ñaaw so bii nga xam ne bañu yaayam. ndeysaan. ngeen waa ko ba jógee Dakar ba Jurbel di ñëw di ut si fii moom lu baax. da ngeen a fekk mu def ko si ba baax. ndeysaan barke lii mu ma lebal. ci digg kër seet gii. yàlla na ko ko tafaafaal may fay doom ju am yàlla na ko ko fay ci daraja Seydina Muhammad. amiin bañu ci man dara. moo ngi nag mbay waat mi topp ci moom. Ablaye Thiaw ba ci sama caat may toog ndax bu tegale bu jiitu boo jiitu bu jubee rek bu ci topp day normal mm-hmm. te macha la aw la cat faal yàlla na yàlla dafa cat ni nga ma sagale sigale ma ne yàlla na yàlla sigale sagale di ko war a la ma sàmba xamula ma dem ba xamula nga nekk fa di dox yaa màkk naan sàngara waaye dafa ko nekk di jaayante di daalante bañ kàjjaamee di sa jabar tey ñëw a tasaar ñëw di ñuy wut si ci yow lu baax waa loo loo jëf lu baax di ko wax di ko laaj waaye yaakaar naa bu mu ñëwee ba mu am na lu wax parce la ma dem ci ma ma la te koy góor a nga xam ne yàlla ma ko cëre rek faal waaye laalu jàpp

mboolem doom bu mu jur rek ak di ma jur yàlla na leen yàlla sàmm suturaal leen leen biir ak biti Faal yaa baax boo bonoon nit fii lay toog di ko wax te dooma mën a daal ndax yaa de boo ko defee ba Diourbel gii ñëw di wax di waxtaan si yow su génn maa ko jënd may nooyi kon tey bu rek ba tax sama xaw ma dégg. moo ko fi def de. des, des, des sorties d'émotions très très compliquées à ah, def lu baax rek moo am solo ci àdduna ah. c'est fort ça. ay mais témoignage yi maire bi def si yow Pape Sidi am na doole ah. yaa ko liggéey aussi. li nga doon wax léegi rek moo dellu siwaat mooy ndaw boo nekk ci yoon. faut pas que je pleure <laughs> booy taxaw faut pas que <laughs> jooyoo sax jooy affaire moo laal xol quoi waaw. sama yaay ay sorteem nag moom waroon na ko calculer ah <laughs> loolu moo tax xaar jigéen teewuñ ko moo tax teewu leen ko yéen tamit <laughs> waaw elle est pleine d'émotions elle partage ça et puis elle nous a éduqués comme ça quoi en fait euh, en fait elle dit que moom ñun ñoo baax wala ñun ñoo koy jàppale mais c'est la base de tout en mm-hmm. papa dafa métti tu t'imagines pendant de vingt ans de ta vie da ngay yeewu cinq heures du matin dem jënd lëjum benn kilo kaani ñaari kilo limon persil ak euh, oignon vert yi nga jël ko taj ko sa place di ko jaay ay saam juróom saam fukki dërëm de cinq heures du matin à treize heures nga wàcc yor deux mille francs ñëw sa ay njaboot wàcc quoi di la xaar pour nga indi leen lu ñu lekk mm. nga ñëw dooro taal yor sa kër c'est-à-dire c'est am bis mu am ñu bindal ma ay fourniture scolaire yu bari mu yor benn potu benn potu diw mu mm. demoon ci xaalis quoi dem ci benn euh, libane bu nekkoon fii nii ci booru gaar bi bu tudd Tala mm-hmm. di ma jëndal ay fourniture mm-hmm. ma ne ko yaay sa xaalis bi bari na de lii yëpp da koy jënde kaye ak ay bic ay feuille affaire yoon mu ne ma waaw boo màggee rek doom ma noppalu en plus euh, ñu ngi dox di jéggi raay bi image boobu c'est resté à jamais dans ma tête en fait c'est une mère forte en fait et puis mm. des mères comme ça il y en a des centaines de milliers dans le Sénégal en fait c'est des mères qui se battent matin midi soir pour leurs enfants macha allah macha allah